waxu seen seen seen waxu report bii dafa. voilà dafa xaw doy waar. léegi waxu report ban ban ban ban euh, quand quand vous agitez xam nga fan yële opposition dañ commencé woon naan waaw Macky Sall et son camp li ñu bëgg mooy reporter élection élection du am deux mille vingt quatre. Hmm. am na moment boo xam ne sax ñenn ñi commencé woon nañu suspecter le camp de Macky Sall ne bëgguñu élection hmm. euh, am en deux mille vingt quatre compris que. un Souleymane un Souleymane Jules Diop qui parle du report il est dans le camp présidentiel euh, un Bibi Baldé qui agite l'idée du report il est dans le camp présidentiel euh, euh, tey Karim Fofana nee na report amul Ismaïla Madior Fall nee na dañuy ergoté report amul man mun naa comprendre débat report boobu ci camp présidentiel mais débat report boobu ci koo xam ne tu es tu te tu te dis opposant et dans l'opposition radicale ngay ñëw di théoriser report ban intérêt nga am ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu reporter euh, cette élection là da nga da nga parewul wala vous faites l'écho de voix souterraine favorable au report et issue de la majorité présidentielle voilà merci pour l'accusation euh, li may njëkk a wax mooy que report bi bi ma defee live le 26 février dama expliquer situation dëkk bi fu mu toll côté yëpp ma wax ne circonstances yi ñu toll on ne plus exclure le débat sur le report consensuel de l'élection foofu laa yem benn phrase laa wax réaction yi bëri na première réaction bi ma enregistré mooy que ñëpp d'accord nañu ci gravité war a yegsi ci dossier boo xam ne dañuy reporter élection présidentielle loolu ñëpp d'accord nañu am na sax ñu ci xaabaabal peut expliquer que mosul am Sénégal bu ñu ko naree def la première fois dafay créer problème am na ñoo xam ne sax nekk nañ fa du joxe ay leçon histoire mais ma fàttali nii boo xoolee élection présidentielle sénégalais ñaari yoon lañ ci mos a waxu report mooy 2012 ak ren ji 2024 première élection présidentielle bi ñu amee crise décembre 62 entre Mamadou Dia le président Mamadou Dia et le président Senghor Senghor dafa wër dëkk bi pour un référendum pour la constitution de 63 donc première élection présidentielle 63 boobu waxu rapport waxuñu ko parce que dañ doon changer système jóge ci régime parlementaire dem ci régime présidentiel xam nga Senghor ñaata la amoon pour pour participer il fallait qu'un député dix députés faral la amul benn député amul benn membre opposition bu fa nekk bi ñu paree ñu dem élection 68 68 bi élection di am cent pour cent la Senghor am boobu régime UPS foofu kenn waxu fa waxu report c' amul woon sens moo tax kuy joxe leçon histoire da ngay xool bu baax balaa ngaa wax ñu jógee 68 dem 73 73 amul waxu report Senghor xam nga ñaata la am 100 pour cent kon affaire report génn nga ci ñetti présidentielle 74 président Ablaye Wade créé parti 78 mu participer élection première participation opposition am 17 pour cent Senghor am 82 pour cent boobu kenn wax foofu report ci lañ def législative mu am groupe parlementaire ci la ñu profité d'ailleurs changer mode de scrutin bi et foofu kenn waxu foofu report parce que ça n'avait pas de sens 78 deux ans après président Senghor bàyyi ne président Abdou Diouf remplacé ma article 35 nga yeggali sama mandat ñu def élection 83 foofu report amu fa sens boobu parti yi nañu reconnaître nañu parti ab président Abdou Diouf bu ñëwee dafa ne ku jàkk jàngoo ku bëgg a nodd nga nodd ñoo am une élection 83 où il y avait beaucoup de candidats kenn waxul waxu report président Abdou Abdou Diouf jàll lu mu amee tension xuloo yëpp mais processus électoral bi yëpp dafa amoon un combat bu ñu doon mënee sur l'encre indélébile sur le la carte d'identité sur l'isoloir président Abdoulaye Wade jiite ko il a été le pionnier pour une élection transparente boobu kenn waxul waxu report pourtant ñefe nañu pour le processus électoral fu ma yegg 83 88 ñëw 88 tension yi fa am c'est après l'élection après les résultats moo am problème mu indi coow yu bare donc ñuy wax ne tension yàgg na am ñu organiser élection bu ñuy cité nañu génne 88 parce que les tensions de 88 c'est après l'élection ñu def tout def truc consensuel dem 93 93 tension yi fa am c'est après l'élection ci la président Kéba Mbaye démissionné ci la ñu assassiné maître maître Sèye loolu mooy histoire du Sénégal kenn waxu fa waxu report 2000 kenn waxul waxu report kenn mosul wax waxu report 2000 moo am défection au niveau du parti socialiste ñu dem élection ñu def candidat unique presque Ablaye Wade ñu jàll moo am alternance kenn tuddul waxu report parce que contexte bi exigé wu ko bi ñu demee nag deux mille dix deux mille douze ñu am problème bu ñu mosul am mooy problème mu troisième mandat loolu mooy di coow président Abdoulaye Wade ne day def troisième mandat am na ci droit juriste yi ñëw ku nekk taxawaalu wax li ngay wax ñuy kurti kurti ñu indi coow ba mu métti ba tàng M23 gars yi ñëw taxaw Abdoulaye Wade ne bàyyi leen ma ma yeggali sama mandat gars yi ne ko kenn du la ko fi bàyyee. mu dem indi Obasanjo mu ñëw ne def report gars yi ne ko mukk et ça c' était une bonne position foofu la ñu njëkk a waxee affaire report et la justification était nulle ñu rejeté ko 2019 kenn waxul waxu report. Ah, waaw xaawal dërëm 2012. waaw. 2012 ak ñoom Obasanjo ñoo agité l'idée du report. et Ablaye Wade était d'accord pour un report de deux ans. Oui. Macky était contre. était contre xam nga lu tax. Hmm? parce que arrangé wu ko woon parce que jàppoon xëy na jàppoon na ci ay calculam ak ay ana ak ay euh, perspective am que report bi Ablaye Wade la arrangé gis nga c'est souvent à chaque fois qu'on parle de report c'est le président sortant le report de l'élection arrangé. c'est le candidat de la majorité sax. le report danaa ñëw danaa ñëw ci lan mooy candidat sortant ak élection ak li xew 2024 ah. 2012 position euh, waa euh, APR c'était une très bonne position maa ngi ciy profité d'ailleurs di di saluer mémoire u Alioune Badara Cissé mais boobu dañu am un processus électoral qui était là correct ministère de l'Intérieur. Les textes étaient là. <laughs> Vous, vous, vous, oubliez le combat contre Ousmane Sonko Non, euh, La nomination du, ministre chargé Monsieur, euh, des, des, non, des élections. on ne parle pas encore de Sonko. Déglu rek. Non, waxuma waxuma Sonko de. Dama jum Ousmane vous, vous oubliez la contestation de Ousmane Ngom. Déglu ma rek. La la, la place du ministère en charge des élections. Non, waxuma dama ko oublier. Dama ne la. En 2012 on avait un bon dispositif électoral. Un fichier il y pas de parrainage sauf pour les candidats indépendants tout était là bi ñu demee ba bëgg a contester même affaire au ministère de l'intérieur Ablaye Wade dafa reculer et en 2012 c'est Ablaye Wade qui était là président Ablaye Wade il s'est toujours battu pour la transparence des élections Ablaye Wade man da xamaluma ko sàcc élection 2012 loolu moo xewoon kon man su ma nekkoon APR je vais me battre contre le report parce que les conditions pouvaient être réunis quelle que la tension pour que ñoom ñu gañe et c'est ce qui est passé ce qui s'est passé ak avantage bi ñu amoon mooy que Niass ak Tanor ndem si yàlla si mujjewuñu jë jëko loolu moo xewoon 2012 circonstance su 2012 loolu moo indi report report u 2012 loolu loolu ñu dem 2019 kenn waxul waxu report maintenant 2024 qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 ak 2024 le processus électoral dafa changer complètement on avait un, une autorité indépendante ou bien en tout cas neutre au ministère de l'Intérieur on l'a plus non seulement on l'a plus le régime actuel a dit non maa bañ defuñu ko kooku changé na on a introduit le parrainage en avril 2018 dans les conditions que vous savez avec une élimination de vingt et quelques candidats et aujourd'hui li ma doon wax ci parrainage bi ba léegi y a des problèmes le processus n'est plus le même c'est clair on a mis un fichier boo xam ne bii aujourd'hui kenn jotu ko et yéen gis ngeen configuration fichier bi ak population yi ni muy tourner ak les déplacements gis nga ñu boole carte d'identité nationale ak carte électeur aloo que c'était séparé donc pour man c'est un processus vicié du début à la fin ki a permis à Macky dépassé en 2019. fichier boobu ngeen demee élection en 2022 euh, remporter les plus grandes villes de ce pays là fichier bi ngeen demee élection en juillet 2022 ngeen introduire le ballottage à l'Assemblée Absolument. nationale. je suis d'accord et, dans les mêmes conditions. non déglu rek loolu ça n'empêche pas que fichier bi am na lu ñu ci d'accord. donc vous avez vous, vous, avez gagné du terrain. vous m'avez donné benn élément nga ma jox mooy fichier léegi processus électoral baa ngi nii est-ce que en 2012 bi ñuy wax waxu report ah on avait des milliers euh, un, un millier de prisonniers politiques est-ce que en 2012 ak yeneen at ci teg amoon nañu un problème de participation surtout des forces politiques principales comme Pastef. 2019 on l'a eu. non amuñu ko. 2019 déglu rek je reviens je reviens. on a eu ce problème là non, non, en 2019 on a eu le parrainage on a eu la mise à l'écart de Karim Wade. la euh, mise à l'écart de Khalifa Sall. Oh, oh. deux grosses forces politiques yoo xam ne mënoon nañu changer le cours de l'élection. non Et ça n'a inquiété personne. Ça, ça a inquiété tout le monde. On s'est battu pour ça. Vous ne vous pas battu pour un report de la présidentielle non, de 2019. Non, non, non. Le report n'est pas une solution passe-partout. Ah. déglu rek man li may wax de déglu moom bu baax nee naa la la gravité du report foofu laa commencé la gravité de proposer un report de parler de report moo tax ma ne la c'est rare benn yoon lañ ko def mooy 2012 et ça ne se justifiait pas bii ñu ngi koy doog a def dinaa leen wax quels sont les la portée et les limites de cette proposition man maa ko def man maa ko réfléchir bind ko xam naa li ma wax bu baax donc processus électoral boobu nekkatul processus bu léegi participation problème bi ñu amoon bi ñu am actuellement amuñu ko woon tension bi fi am nii amu fi woon avant et aujourd'hui on a plus de problème de troisième mandat on a président boo xam ne bokkatul loolu c'est nouveau donc ce n'est plus le même contexte booy analyser da ngay seet lan moo xew quels sont les faits le commentaire maintenant il est libre ci perception bi ma gis ci réaction yi dafa am réaction o xam ne ça relève de l'état d'esprit l'état d'esprit des Sénégalais c'est que c'est très grave de reporter une présidentielle je peux être d'accord avec eux mais faisons la distinction entre les élections et les contextes c'est ce que je viens de faire. mais reporter pourquoi. waaw déglu rek dina ñëw bul beneen bi mooy. man li ma gëm mooy que y a beaucoup de sénégalais qui ont encore confiance au dispositif électoral yaa ngi koy wax nii am na am loolu la ñuy wax wooy euh, gañ ngeen fi local gañ ngeen fi législatif donc le dispositif est bon man gëmuma loolu képp ku gëm dispositif électoral bii nekk fi en place tu auras un réveil brutal man gëmuma ko wax naa lu tax pour man c'est clair beneen bi nit ñi dañu am crainte crainte dañu ragal sauter dans l'inconnu comme mosuñu ko fi def yii saa yi gaan bi daf ñu nar a dugal ci ay report patati patata yee parce que xamuñu bu ñu nar a reporté naka lañ koy def Babacar lii du fi ah, gis nga gis nga suspicion yi nga am ci processus bi gis nga même 2012 bi ngay wax Macky Sall mii tey falu bokkoon na ci ñu doon contesté le processus bokkoon na ci ñu doon accuser Ablaye Wade. de vouloir voler les les ouais, les, les, ça, les a que ah. c'était transparent. Sénégal. mais loolu xanaa xanaa comme vous la comme vous souvent mu biaisé processus bi en en amont. mais non, non, non. le processus final sàcc élection Sénégal fii mënu fee am. c'est ça ton gis nga ce point de vue bu nga am beaucoup de Sénégalais pensent beaucoup de Sénégalais pensent que élection yi processus électoral bi c'est correct. man je ne le pense pas. non waxuma processus bi. lan la. xam nga dañu quand Macky Sall a introduit le parrainage dañ ne souvent les opposants nous disent élection bi bu ñu koy sàcc sàccuñu ko euh, la la dernière semaine de l' dañuy biaiser processus bi de sorte à ce que ñu éliminer ñenn ñi affaiblir ñenn ñi. mais élection kenn mënu ko fay sàcc. non non non man ma góobu ko c'est vrai que xanaa madame yow laajatoo ma. waaw dama ne la gëw ma ko dama am ay éléments de preuve yu leer nañ yu gëmoo lan lan nga gëm gëw ne processus électoral dispositif électoral bii ñu am nii c'est un dispositif intègre pour man dispositif bi intégro te dinaa ko démontrer ba mu leer